tey maa ngi fi ñëw teewal fi ñaar waaye teewal fi benn ñëw naa fi teewal fi imam ratib bu ndakaaru di imam Alioune Moussa Samba ñëw naa fi teewal grand sëriñ de Dakar El Hadj Alioune El Hadj Abdoulaye waaye ñoom ñaar yëpp soo leen boolee dañuy fekk ci communauté lébu kon mën naa wax ne rek dama ñëw représenter communauté lébu euh, Serigne Mbacke Ndiaye dafa am lu mu leen woo walla mosieur le ministre ci ngeen taxaw ngir seen place ci ndakaaru ngeen am ko waaye fook naa communauté lébu bi mu accepté jël leen def leen treizième penc loolu lenn rek la firi lenn rek la firi dafa mel ni benn borom kër bu am fukki doom ak ñaar mu jël benn guinéen ne ko yaay yaay sama fukkeelu doom ak ñett kon ngeen xam ne communauté lébu moom uuf na leen yéen guinéen yépp ak fu ngeen mën a bokk li ciy firnde mooy bi nga xamee ne communauté Guinée soxla na fu mu defee laylatul qadri yàlla def na mu jaare ci man ak suma mbokk Abdourahman Diallo Palaga bi ñu demee ma ne ko incha allahu taala dinaa fexe grande mosquée de Dakar ñu teg ko ci seen loxo ma dem waxtaan ci ak imam ratib imam ratib ne ma li nga wax loolu la ñuy def kon communauté guinéenne ci ñun la ñu bokk ci jumaa ji lañu bokk kon feek ñoom ñu ngi soxla grande mosquée de Dakar ci laylatul kadri ñun duñu ko jox keneen pour dëggal loolu am na benn imam ci jumaa ja la nekk ci imam yi jiite àjjuma la bokk dafa soxla grande mosquée pour organiser laylatul qadri bi mu ñëwee wax ko imam ratib imam ratib ne ko jox naa gine yi sama sama kàddu dootuma ko delloosi tant que ñoom ñu ngi ko soxla kon gine moo moom jumaa ji ci la laylatul qadr alors ma bëggoon seede Thierno seeni Bari ak ñi mu àndal yépp jóge gine ma wax leen ne communauté guinéenne ak communauté lébu ñu ngi àndandoo di liggéey liggéey bu rafet saa soo xamee ne action sociale bu grande mosquée de Dakar wala communauté lébu war a def communauté guinéenne mu ngi taxaw ci wetam ñu àndandoo def ko communauté guinéenne tam lépp lu muy organiser grande mosquée de Dakar communauté lébu dina ñëw taxaw ci wetam tey jii délégation bu rëy la ñu defoon imam ratib ci boppam moo bëggoon a ñëwal boppam waaye yàlla dafa def tey ñu am ñeenti xew-xew yoo xam ne il faut kenn dem fenn mu ne ma comme nag yow yow yaay sama bunt ci communauté guinéenne kon naa la bàyyi yow nga dem man ma dem cees actuellement nii imaam normalement ma nga cees ci benn sëy bu mu war a takk foofu looloo tax ñëwul ànd ak ñun waaye mu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax incha allahu taala ñu leen di woo ci booloo ak ci benn wax nañ ko fii léegi ñu wax ñëpp wax nañ ko dafa am loo xam ne lii soo ko bëggee ut il faut nga nekk benn benn bi mooy lan wax naa leen ko ci benn xew-xew boo xam ne Thierno Boubacar Mata Kaaw moo ko doon organisé doon tudd doomam dama leen wax ma ne communauté lébu fukki pénc la ak ñaar fukki pénc ak ñaar soo nekkee fukki pénc ak ñaar yow nga jóge Guinée bëgg lébu yi def la fukkeelu pénc ak ñett yow war nga fexe sa ñeenti région yu naturel yooyu ñu nekk benn ngeen fekk ci communauté lébu ngeen nekk benn pénc ñu doon ko àndandoo nekk fukki pénc ak ñett sama mbokk docteur Ousmane Diallo wax na léegi moom yàlla def na ñoo bokkoon classe fële ci lycée Blaise Diagne docteur Ousmane Diallo wax na ba tudd Thierno Souleymane Baal Thierno Souleymane Baal ñun lébu dañ ko honoré ci naka boo demee tey grande mosquée de Dakar ci biir institut islamique di nga fa fekk benn tableau bu mag boo xam ne en pierre la ça pèse des tonnes ça pèse des tonnes ñu jël ko bind ci loolu nga xam ne règle yooyu Souleymane Baal jëloon ne moom la ñuy doxee réew ñu bind ko ci boo demee diggu institut islamique di nga fa fekk loolu ñu njukkale ko communauté guinéenne njukkale ko Thierno Souleymane Baal bu may mujjeel damay mujjee ci suñu mbokku Maghrib nga xam ne Maroc ak Sénégal seen diggante yàgg na yàgg boo xam ne xóot na xóot boo xam ne bi kenn mënu ko misaal te ñoom dañu am benn séisme zelzala boo xam ne moo wàcc seen kaw ba démb am na lu ëpp ñaari téeméeri nit lu ko ëpp yoo xam ne génn nañu àdduna te ñu ngi ragal sax mu am ñeneen parce que am na ay blessés yu grave moo tax sànq bi ñuy ñaan moom Chérif Idriss Tijani moom dafa bëggoon a ñaan que loolu ñu gën ko màndargaal suñ ko mënee may ñun ñépp ñu àndandoo jóg taxaw waxuñu minute de silence mais ñu taxaw jàng fatiha jàng salaatal fatihi jàng ñetti lixlaas tëj ko salaatul fatihi ñun ñépp ñu àndandoo ko ñu ñaanal ñooñu nga xam ne ñoom ñoo génn àdduna ci Maroc ñu ñaanal leen yàlla Euh, tàbbal leen aljana te yàlla dimbali leen ba loola incha allahu taala ñu saafara ko kon ci ndigalu gaa ñi maa ngi ñaan ñëpp ñu jóg xaw ma ndax ñoom dégg nañ li ma wax wala déet voilà euh, tadaamunan ma alshaabi almaghribi natlub min aljami an yaqifu wa yaqra'u qiraa da'wa li euh, ahli almaghrib wa maghfira li jami almustashhidin yaani fatiha fatiha salaatul fatihi ñetti ixlaas salaatul fatihi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 wa in kaanu musiina fa tajaawaza anhum bi maxdi fadlika wa juudika wa karamika yaa akramal akramin yaa rabbal alamin allahuma ixfir lil muminina wal muminaati allahuma ixfir lil muminina wal muminaati allahuma ixfir lil muminina alladina stushhidu fi lmagrib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 je dis bien région de Guinée ñëw région du Sénégal je dis région de Guinée parce que sama conviction depuis le bas mooy Afrique benn réew la tubaab yi ñoo ñëw def Guinée Mali Mauritanie ainsi de suite ce qui ne signifie absolument rien du tout mais loolu loolu ñun en tant que population d'abord ñoo war a ànd xeex pour ñu xam ni ñun benn lañu Ma mère est venue du Fouta Jalon. Mon père est venu du Djolof. Moi, je suis né à Khombol. Mon père, sa grand ou sa mère est serrère. Qu'est-ce que je suis Je suis africain. C'est tout. Donc, il faudrait que Yen Toudé, des Sénégalais d'origine guinéenne ou bien des Guinéens au Sénégal, acceptent accepter sen place comme il se doit dans la société sénégalaise. quel que soit le président Mohamed Lamine Diallo l'a dit tout à l'heure avec le président Baïna ils se sont battus à l'Assemblée nationale pour loolu comme lui je suis candidat à la présidence de la République du Sénégal et dans les vingt mesures yi ma annoncé envoyé na ko au président Barry bokk na ci effectivement deux mesures qui me paraissent très importantes benn bi mooy comme le professeur le docteur Diallo l'a dit tout à l'heure le président Mamadou Lamine l'a rappelé naka lañ mënu comprendre quelqu'un boo nga xam ni maamam maamaatam maamaatam il est né au Sénégal moom mu juddu Sénégal il n'a pas la nationalité sénégalaise je pense que c'est le président Mamadou Saliou ou quelqu'un d'autre moo ma wan carte membre parti UPS de 1968 boo nga xam ni papam dafa nekkoon membre UPS 1968 jusqu'en 2023 qui est plus sénégalais que celui-là Donc c'est un combat qu'il faut mener. L'autre combat, et je termine par ça pour ne pas monopoliser la parole. Il faut que nous nous les jeunes surtout, les femmes, tout le monde, les sociétés civiles, les partis politiques, pour arriver à un gouvernement sous-régional. C'est la Guinée, c'est la Guinée-Bissau, c'est la Gambie, c'est le Sénégal, c'est le Mali et la Mauritanie. Aujourd'hui, les États-Unis, pourquoi am doole dañu boole plus de cinquante états def ko benn européens yi ñu ngi booloo malgré ki ñu ngi am union européenne mais ñi ngi continuer di gën a yaatal seen réew alors que nous chez ku nekk da nga bëgg a doon président ku nekk bëgg a doon premier ministre ku nekk am sa pale ku nekk sa ruq nekk sa ruq ngay doxal bàyyi keneen ki tant que ñu ngi continuer di doxee noonu l'Afrique ne se développera jamais or su ñu jëlee les ressources que nous avons dans nos différents pays muy pétrole muy gaz muy or muy diamant muy bauxite muy manganèse muy ndox muy les ressources forestières tout ce que nous avons dans cette sous-région bu ñu ko dajalee ñu am dëkk yow nga xam ñooy gën a développé partout dans le monde c'est un combat qu'il faut mener mais mais dañuy wax ni ndimbal na ja fekk loxol borom dugg leen dans les associations dans les ASC dans les syndicats dans les partis politiques dans les daïra que vous soyez présents partout parce que kenn ëppale wu leen dara ci Sénégal pour que bu ngeen demee dans vos coins ngeen toog à l'écart bàyyi ñeneen di décider à votre place il faut le refuser vous êtes aussi sénégalais que les Diop les Fall et les Ndiaye. Ah. assumez vos responsabilités ëllëg gi si biir lépp lu ngeen bëgg réew bi ngeen mën ko am. suma fàtte suma frère marocain yi te au-delà des relations entre le Sénégal et le Maroc. Uh-huh. personnellement j'ai des relations avec la famille chérifienne su ma ko waxee Mohamed Mernissi. kii est le cousin du roi du Maroc, c'est mon ami intime. Je suis régulièrement chez lui en, au Maroc, comme il vient régulièrement. Depuis le séisme, mais tous les jours, nous sommes en communication. Donc vraiment, nous avons solidarité avec le peuple marocain. Nous Merci. Nous ambassadeur du Maroc. Nous Massaou. Massaou, ci Maroc. ndax euh, tremblement de terre lool Ah, ñu ngi leen di massawu di leen di leen di leen di leen jaal tamit ñëpp ñu ñu ci seen bakkan rot kilifa yi fi yëpp ñu ngi leen di ñu di leen di leen gërëm di leen sant di wax rek ne kontaan nañu lool ci euh, euh, communauté lébu mu nangu treizième penc muy fulbe fii ci ndakaaru yi loolu lu mag la lu rëy la ah, te tamit exemple la naka nañu war dundee fii ci Sénégal ak ci Afrique de l'Ouest yëpp loolu euh, laa bëggoon rafetlu rek di wax rek ne ñi ñaan yàlla suñu président bi mu dimbale ñu euh, euh, liggéey boobu mën a continuer law foofu ci Guinée parce que Guinée tamit am na ay ay problèmes yoo xam ne ñun ñu ngi koy naxarlu foofu ci Guinée lu lu mel ni 28 septembre bu fa bu fa passé woon lu fa woon loolu kenn mënul nekk jullit walla nekk africain wala nekk sénégalais mën koo nangu euh, yooyu nag war nañ ci jublu liggéey ci mu bañ euh, amati euh, fii ci Guinée ak ci fi Sénégal di wax rek ne docteur Ousmane Diallo wax na ko c'est pas normal que mu am fii sénégalais yoo xam ne ni ñuy juddu màgg fii neneen du leen jox papier sénégalais <coughs> dama ne teguñu ko fenn amul benn droit ak benn légalité boo xam ne mën nañ wax ne loolu euh, euh, mën na law fii ci Sénégal kon nag war nañu jublu euh, ñu ñu ñu ñu ñu saafara loolu maa ngi nuyu di ziar imam mbay Niang ndax ba mu nekkee assemblée nationale maa ngi moom waxtaan nañ ci def nañ ci ay jéego mais am nañ ci ay blocage kon nag loolu war nañ koo saafara en tout cas su ma nekkee président 2024 danaa ko réglé asalaamaaleykum wa rahmatulah